salaamaaleykum am internet yu Dakar Buzz ginaaw bi ñu leen nuyoo di leen siyaare ci weeru sell tedd wi nga xam ne mooy weeru koor boobu ba léegi ñu ngi ci di ñaan luñ ci jaamu yàlla yàlla ko yàlla nangu luñ ci am ceere ci la yàlla nañ yàlla jéggal ci barke Seyduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam tey nag ànd dekkil euh, Padoa di ñoo xam ne tey ay nit ñu baax lañu di yëngu ci wàllu social naam sax euh, doo bëgguñu woon ñu wane ko waaye lu baax dañ koy siiwal. ndax dégam lu bon la wane te njariñ wax waxuma kon li baax ba tax na ñu ànd ci ak Dakar Buzz tey ku ne xam Dakar Buzz ci wàllu social muy xéewal li ñuy joxe tey ñu seet si kilifa bu baax tey war a ak moom waaye kàddu cant ak ñaan rek ak laaj ko lan la lislaam wax ci euh, fekk sa mboolum mbokkum jullit mu sonn ak mu jaxlewul sax mu ne ci ay yoon nga dimbalee ko jox ko ay xéewal lan la ci diin wax ci suuf ci weer wi maam ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa ñu ngi leen di delloo nuyoo di euh, am kontaan bu baax di sant sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa di ñaan borom bi subhaanahu wa ci weer bu barkeel bi yàlla barkeel leen barkeel mboolem julli ñu xam ni ñu ngi yëngu ci miskin yàlla yi ak maawaa yàlla yi ak borom xam-xam ak néegu yàlla yi maanaam pour mu am nu ñu dunde léegi léegi lañ doon jàng ci biir tafsir bi. sallallahu alayhi wa sallam mu ni képp koo xam ne jël na benn tibb lekk jokk moroom jullitam mu aajo woo ko te mu nekk lekk bu baax borom subhaanahu wa lu mu giitu lu gën a tuuti lu mu koy defal mooy problème yowmal qiyaama yi nga xam ne nit ñi dinañ dana dinañ sonn na ci taxawaay bi moom yàlla dana ko ci dimbale du yëg dara loolu moo ci gën a tuuti kon yéen tam yàlla leen yàlla defal loolu defal leen lu ëpp loolu bi jaahi rasulillah yàlla yàlla barkeel ànd bi barkeel maanaam liggéey bi ku ci yëngu yàlla na la yàlla barkeel ci li ngay yëngu ku ci amul fu muy yëngu yàlla na la yàlla yombal mi ngay fi ngay yëngu te mu barkeel barkeel njaboot bi jaay rasulillahi lu ñuy gën a farape ci sunu kontaan ci yéen may ànd bi ànd dafa am solo ci jullit xol yi raxasu liggéey bi nekk benn ñu yéenante jàmm loolu ba borom tax borom bi subhanahu wa taala indi ñu fi leneen li dul lii du dara julli yi ñuy julli ak maanaam li ñuy joxe ak li ñuy dem màkk ak lépp xol yi pour xol yi seet la yàlla soxla ci noonu loolu rek la yàlla soxla yàlla soxlul euh, quantité bi qualité bi la soxla kon yéen a ngi taxaw ci tànk bu rafet ñu ngi leen di sant di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa taala mu yokk seen sutur yokk seen teraanga yokk seen ànd bu jëm ci kanam bi jaay rasulillah ñi fi nekk ak ñi nekk ci bitim réew yëpp nuyu naa ñëpp euh, sant naa ñëpp. Euh, jaajafal naa ñëpp ñaanal naa ñëpp yal na yàlla boole defar lu baax yu jaay rasulillah yéen a xam loo leen bëggal seen bopp waaye li gën a baax ci yéen yàlla moo kam yal leen yàlla boole defal li ñu wax ak li ñu fàtt yëpp yàlla moom fàttewul dara te moo gën a xam lu baax ci jàmm bi yal nañ ko yàlla boole defar bi jaay rasulillah ñu nekk ci weer koor nekk ci néeg yàlla bi nekk ci fukki fan yu mujj ci koor nga xam ni ci yàlla ci fan yi lay gorel jaamam yi ci safar yàlla nañ yàlla boole gorel ci safar bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kontaan nañ trop di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. ñi nga xam tam ñu ngi ci àll bi tam day doomu sénégalais seen xel yëpp nekk dimbali ñu ne fii tam ñoom tam soxla nañ ñaan yàlla gën a yombal seeni mbir tam. loolu surtout parce que léegi-léegi ni comme ni doon jàng euh, génne wuti dara euh, pour indi sa indil ko sa njaboot fii al jihad fi sabilillah la kon ñoom ci jihaad fi sabilillah lañ nekk yàlla leen yàlla boole defal jàmm yal na yàlla ubbil leen seen buntu wërsëg sàmm leen defal leen teraanga àddina ak àllaaxira bi jaahi rasulillah ñu ngi am kontaan ci moom bu baax a baax a baax ñoom ñëpp nag ñi nekk Italie ak ñi nekk France ak ñi nekk feneen yëpp yal yàlla boole sàmm yal na yàlla boole defal te lii geste bu rafet la parce que dana wane ni tamit ñoom tam ñu ngi ñu bay xel comme ñu ngi nekk fi di leen ñaanal te ñoom tam ñu ngi nekk di fàttaliku loolu am solo la. jullit loolu lañ ko sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi ba tey di ma leen ko waxee rek ginnaaw kàddu yu imaam yëkkati muy kàddu yu cant ak kaddu ñaan ñenn ci membre yi nga xam tam ñu ngi bokk ci ànd dekkil euh, Patte d'Oie ñoom it du ñàkk tam ñu sànn ci ay kàddu ndax liggéey bi am na lu ko sabab am na fu mu tàmbalee am na fu mu bëgg mu yom fa tey ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw man la Baye Sunkuru Ndaw di membre actif bu ànd dekkil Patte d'Oie donc ànd dekkil damay wax toujours ci euh, tour président bi di Julo ñas muy association la boo xam ne ñu ngi ko créé depuis 2017 euh, di ci yëngu ba léegi ci wàllu social. donc dañ faral di def saa su weeru koor bi jotee rek ñu xool néew di doole yi ñu nekk fii ci biir Patte ak euh, imam bi jël ay denrées alimentaires jox ko suñu imam ak néew di doole yi donc ànd ak Patte d'Oie nekk na. am nañ plus de 500 membres ñoo xam ne ñu ngi bitim réew ak ñu nekk fii ci euh, Padoa ak si euh, Sénégal Dakar donc euh, ñu ngi yëngu ci wàllu sociale donc nekk na association bu dëgër boo xam ne depuis bañ ko créé ba léegi waa Padoa ñu ngi see ñu ngi si gis seen bopp parce que ñu ngi leen di jàppale ci fàllum yu nekk donc loolu mooy kàddu yi ma ci bëggoon sànni <laughs> waaw Euh, maa ngi leen di nuyu ku nekk euh, sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Abdoulaye Mbodj nekk euh, membre ànd Dekkil Patte d'Oie waaw en fait lii moom du lu bees parce que ça fait bii mooy cinquième édition bi cinquième année bi ñi association bi di ko def waaw lii moom ñu ngi leen di gërëm di leen sant di sàkku imam mu ñaanal ñu bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di gërëm tamit euh, waa bitim réew ñi nga xam ne ni ñoom ñoo sooxe lii ak tamit di gërëm tamit waa Padois tamit ñi fi nekk toog fii di leen jàppale ci liggéey gi waaw loolu am na am na solo trop waaw ba nga xam ne nii mbir mi mën a avancé mën a dox am ay jéego yu bari waaw jërëjëf. ànd ay financement yu seen ginnaaw wala seen propre def lii waaw waaw dama jàpp ne ànd Tekki Patte ñoom seen ay propre moyen nañuy doxee di cotiser pour ba mën a toll fii am situation yu ñu mën a am nii ngeen koy yaatal wala Patte d'Oie lay pour keneen ku ci bëgg a ndax lu baax du doy tam amul frontière ndax ubbil ngeen ñeneen seen bunt pour ñu la waaw waaw lu baax moom euh. jàpp naa ne du yëfu Patte kese lu baax moom <laughs> ku nekk fu mu jugee rek fu mu jugee rek baax na lessance na nekk lu baax àdduna bi ñëpp bi ci jëriñu rek loolu rek a am solo loolu rek a am solo jërëjëf kon mbokk yi lii bokk na ci liñ leen jësiloon tey fii ci kër imam bi ginnaaw xéewal liñ ko jox di ñaan yàlla gën a ko fee bàyyi guddal fanam ndax li may wax rek borom xam-xam mënta ñàkk ci am réew rawatina ci gox di ñaan ñaanal nag particulièrement ñi képp ku ci bokk rek maa ngi lay ñaan yàlla yokku la di nuyu sama frère Zilo nit ku baax bu li taxawee ba Dakar Buzz am ci accès moom da ciy liggéey liggéey bu am solo di nuyu Ndeye Fatou Fall moom it koo xam ne social rek moo ko ñor payeegunu nag dañuy dem toppaleen leen li nga xam ne rek mooy distribution bi ku ci sa nekk rek ñoom ñu jox la ci mais ñi ngi ñaan yàlla da ko teewe at yu bari tam ànd ak wér ak barkeel ba jur ay centième édition ak Dakar Buzz yàlla na ñëpp am jàmm. ci Dakar Buzz ba tey ñu ngi leen toppal li nga xam ne mooy xéewal yi ñuy séddale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 لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل سفوان عليه تراب فأثابهم وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله غني والله لا يهدي القوم الكافرين اللهم بلغ سلام ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومسائقنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وخاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم اجعل آخرتنا منا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdu lillahi rabbil alamin ginnaaw bi la bàyyi nga nuyoo ci yëg waaw gannaaw sant borom bi subhaanahu wa taala di leen sant ni ko yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam man laa <coughs> ndaw ngeen nga xam ne e, ndaw yi gën ci ndaw yi ngeen bokk ndax am na benn ker ëllëg yowmal qiyaam yonent yàlla bokk na ci ñi nga xam ne ñooy bokk ca ker googu ndaw lu sawar ci jaamu yàlla te yéen macha allah seen lépp def ngeen ko ci jaamu yàlla xam na euh, seen mbokk bi ngeen àndal ci daara ji la yaroo yaayam léppam daara ji la yéen nag bu leen yàlla tàggat leen ba teg leen ci yoon bi te dëpp leen saas yal na yàlla dimbale leen saa li ci des koy bàyyi ak yaayu daara yi rek. ñu sant leen gërëm leen ñoo ma gën a xam macha allah seen activité ak lépp asalaamaaleykum wa rahmatulah wabarakatuh Omar jërëjëf li may wax rek euh, fu góor nekk di baax rek jigéen ma ngi ci wetam di baax te lislaam fu mu tuddee góor tudd na jigéen ñu taxaw ak kenn ci yaayu daayira yi moom it mu sànni ci ñaari kàddu ci liggéey bi la bokk yaay booy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay papa. Yacine. Yacine lan nga ci daara ji mbay Mbaye euh, man secretaire général à l'organisation laa ci daara ji. Euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ndax yéen ñi fi taxaw ñu suñu ay doom ngeen ñoo leen jur boo toogee nag nekk ak sa ay doom ba ñu dem ba toll ni yow ba jël teraanga di la ko indil da ngay sant yàlla julli ci yonent bi te foo toog di leen ñaanal am ñu lu ñuy def lu di leen ñaanal ñu leen di ñaanal yàlla lépp loo xam ne lu gën la yàlla na ñëw ci ñëw ci barke yonent bi te ngeen jëriñoo ko nag te mu lu gën ci yéen parce que ñun ñëpp ñoo leen jur Patte d'Oie ñi fi nekk ñëpp ñoo leen jur yéen góor yi kon dara du ñaaw te dara warul ñaaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant nga leen ndóof ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm waa mairie bi yëpp ñu ngi sant yàlla ginnaaw bu ñu sant yàlla ba pare ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm yàlla leen yàlla fay jox Ami kole Sow laa tudd di lan ci ji di yaayu daara ji nag yàgg nañ fi lool 94 ba quinze ñu ngi ci daara ji di kocci kocci lu ñu xam tey ñoom ñoo ñu ko xamal rawatina kii nga xam ne mooy Touré yàlla def na nag ñi ngi sant di gërëm ndax yéen kat da neen dekkil daara dekkil Patte d'Oie yéen bëggu leen ñu dee de boo leen bëggoo ñu dee doo leen xalaat yal na leen yàlla fay yàlla mi am pay ndax wax ji du gudd ci koor la ñu nekk te doo day day xaw a kii daal mais lii ñu wax rek yàlla xam na lépp la in shakartum la na azidanakum yàlla booy sant mu mu lay dolli kon boog ñu ngi sant di leen sant di sant góor gi tey dencul dara lu mu am bokk ak ñëpp yàlla lu ko toroxal mu ko benn yoon bu soobee yàlla. jërëjëf kon euh, ñu bàyyi la it nga comme ci daara ji nga nekkoon nga jukki ci ñaari baat ñu door a dem. awuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu mbooloo bi fi teew man bàyyi Baye Sunkuru Ndaw di membre actif bu ADEPO di nuyu ñi fi teew ñi ñëpp di nuyu. suñu imam Touré ginnaaw bañ jaaree ci imam Anne di wax ne que ne àndal dëkk Padoa association boo xam ne la waa doom yi Padoa ñoo ko sos ci turu président bi Julo ñas ak euh, àndandoom yi bitim réew depuis 2017 donc nekk na association boo xam ne mu ngi évoluer ci social donc c'est une association non lucrative et qui évolue juste dans le sociale di jàppale néew di doole yi nekk fii ci biir Padoa donc comme chaque année dañ koy def di jël ay denrées alimentaires di ko jox imam yi ak néew di doole yi nekk fii ci biir Patte d'Oie donc association bi regroupé na une centaine de membres dont une vingtaine de membre boo xam ne ils sont actifs au niveau de la diaspora ak une dizaine de membre boo xam ne ils sont actifs au niveau de Dakar fii euh, notamment à la Patte d'Oie Builders donc ñu ngi euh, rafetlu lii yëpp àndandoo bi ñu ànd nii di distribuer denrées alimentaires yi donc loolu laa amoon ay kàddu yi ma ci sànni. jërëjëf Omar loolu mooy li nu jëlee fii ci daaray imam ture euh, ginnaaw bu ñu jógee ci fee nga xam ne mooy imam Anne euh, li ci des mooy sant yàlla rek yàlla moo ne bu ngeen santee ma dolli euh, def lu baax am na solo tolop waaye ci weer wi da ci ëpp solo ndax ku ne xam ne weer wi weer la ko ne weeru yërmande la weeru partage la weeru jàppalante kon waa ànd dekkil Patte d'Oie bu xalaatee lii. jël seen i propre moyen di ko def ne leen leer na yàlla kom mu nar tafay du la liggéey loo yàlla yàlla barkeel ko di gërëmaat encore une fois Julo Niass ak ñi nga àndal liggéey bi yëpp ndax benn loxo du tàccu boo ko mënee am na ñu la ci dooleel képp ku ci bokk rek yàlla yàlla barkeel la te la yi gërëm Dakar Buzz nag ndax ci baax rek lay dox mu ngi xool saa su ne rek luy social mu ànd ci yàlla na ñëpp am jàmm. alors bonjour euh, l'association And Dekil Padoua est aujourd'hui chez Madame Fonseca qui est la responsable des chrétiennes habitant Euh, à la Padoie Buildeuse. Donc aujourd'hui, l'association est venue vous remettre ces denrées alimentaires en guise de ce ramadan qu'on a partagé, que ce soit la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Qu'est-ce que vous en dites, votre avis là-dessus euh, On vous remercie. En tout cas, ça nous touche parce que vraiment, on ne s'y attendait pas. Et que vraiment, euh, c'est ça qu'on appelle le dialogue islamo-chrétien. puisque de toutes les manières, nous, quand on a aussi, avec notre Caritas, on essaye de faire la même chose, on donne à tout le monde, que ce soit musulman ou chrétien. Et là, vous avez fait exactement le même geste que la Caritas. on vous remercie fortement et on vous souhaite cette association longue vie et à tous une très bonne santé. jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz ginnaaw bi ñu leen nuyoo di am mbégte ci leen toppaloon mooy li nga xam ne ñu ngi ko doon séddale muy xéewal yi ànd ceeg waa association ànd dekkil Padois nga dem nañ fu ne tey jii dem nañ ci ñi nga xam ne tey ay imaam lan dem ci daara yi ñëw ci mbokk chrétien yi nga xam ne ñun ak ñoom ah, daanaka benn lan ndax dëkk dafa am solo te dëkkandoo dafa am lu ci wax demoon na ba ni dëkkandoo sax day dond waaye bokkuñu diine mais wan nañ leen ni ñun ak ñoom ñoo bokk ndax tey bu jàmm xewul woon ci cité bi tey ñoom ñoo ci jiitu moo tax tey li ñu sédd jullit yi ñu sedd leen ci tey pour wane rek yàlla wadd karam naa bane aadama la wax kenn ku rek da ngay jox sa morom cër fii leen di wàccee sunu nag euh, tëj ak nga xam nag mooy Sonko buñ pare ñaan tey ñaan yàlla barkeel liggéey bi ndax barkeel gi moo ci am solo waaw comme ni nga ko waxee rek euh, association Padois ànd dekkil mu ngi gërëm euh, ñi ko ñi participer lépp ci événement bi tey que ce soit ñi nekk bitim réew que ci que ñi nekk fii ci biir euh, ci réew mi muy Sénégal ak Dakar notamment à la Padoa Builders donc pour rappeler toujours gars yi ne leen association bi c'est une association non lucrative donc juste qui évolue dans le social qui est présidée par euh, Julio Niass muy doomu Padois Builders donc euh, foofu nañuy tëjee di gërëm ñëpp surtout les donateurs am na ñoo xam ne tamit ay sympathisants nañ bu ko gars yi fàtte ñoo xam ne dañ dëkkoon Padois tuxu nekkaat beneen gox mais toujours seen i loxo mu ngi ñëw ci lépp lu xew ci Padois donc di gërëm ñëpp ñu nekk bitim réew am ñu seen fay ñu nekk fii ci biir réew am am ñu seen fay di gërëm tamit tey euh, coordination bi ñu àndal tey ji dirigé par tonton Mbodj ak maman ñas ñoo ngi nii ñoom ñëpp teew nañ jàpp ci liggéey bi tey ak Pape Cheikh waaw Maguette bëggul ma tudd ko donc di gërëm ñëpp tamit di gërëm tamit waa Dakar Buzz waa dakaar Buzz tamit euh, ñu ngi ñëw jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax amuñu seen fay nag waaw yàlla leen suñ borom fay te di ñaanal ñëpp euh, ñu yeggali si koor gi ci jàmm yàlla nangul ñu suñu koor te lépp luñ ci ñaan rek suñu borom defal ñu ko ci bu mu gën a gaawee allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbi salaam jërëjëf mbokk yi kon ba déwén ak jàmm rek yàlla yàlla doole xewli te barkeel ko kontaan naa